asalaamaaleykum mbokki euh, internet du seetaan la chaîne euh, bio naturel bu Cheikh Omar Diop euh, ñu leen di nuyu di leen di jaajëfal baax a baax. ñu nekk ci dynamique innovation au niveau de des différentes boutiques yi nga xam ne yooyu la Cheikh Omar Diop ubbi fii ci Sénégal ak li ko war ci àdduna te ni ñuy livrer tamit partout à travers le monde. si wàllu innovation boobu noonu nag ñu nekk si phase boo xam ne phase extension la phase innover ak phase yokk tey jii am nañ benn boutique boo xam ne mu ngi Wakaam am nañ benn bu nekk ñaari tali am nañ benn bu nekk kaas ba am nañ beneen boo xam ne mu ngi buntu pikin te amaat nañu beneen boo xam ne mu ngi Rufisque maanaam Tëngéej am nañ benn boo xam ne mu ngi Mbour ñu waaj ubbi ñu ubbi nag bii nga xam ne moom moo nekk parcelle unité 17 rien que pour gën a yokk gën a jege suñu clientèle. parce que tout le temps nit ñi di déplacé wu di jóge feneen di ñëw ba fii parfois day métti ñu comprendre loolu nag moo tax plutôt ko tout le temps nit ñi di déplacé wu di ñëw si suñuy produit léegi dañu jël décision ni ñun ñooy dem si nit ñi yóbbu leen produit yi ñu leen di gën a jege ñu gën a jege clientèle bi rien que pour mun leen satisfaire sans compter li nga xam ne ay livraison la yoo xam ne foofu foo nekk si àdduna bi ñun mun nañu la fekk si ak suñuy produit ñëw livré la. képp ko koo xam ne nag bëgg na ñëw suñu boutique boobu noonu nekk parcelle unité 17 mun nga woote suñu numéro téléphone bi euh, di 78 373 18 18 su ko defee ñun mun nañ la tegtal ba nga ñëw ba fekk suñu fu ñu nekk. ak tamit fépp foo mënta nekk Sénégal ba woote si numéro boobu noonu mun nañ la tegtal ñu wax la ban boutique moo la gën a jege pour nga dem foofu noonu. bio naturel nag yaakaar naa kenn dootu ko présenté Sénégal ndax Sénégal ñëpp xam nañ ko muy ay produits yoo xam ne taamu ngeen ko chaque jour di ko utiliser. Euh, mu jëm ci wàllu ay produits cosmétiques comme yi ngeen di gis fii nii ak ay produits tamit yoo xam ne ay produits complément alimentaire la muy ay euh, ay euh, ay poudre yoo xam ne dañ koy utiliser di ko consommer mu leen di yokk seen cawarte di leen di yokk wér yaram muy tamit ay produits yoo xam ne ay huile ay huile essentielles yoo xam ne jigéen ñi dañ koy faral di utiliser seen yaram góor ñi tamit dañ koy utiliser ak tamit lépp loo xam ne jëm na ci ay traitement de maladie tey jii bionaturel def nañu ci ay avancées yu am solo lépp loo xam ne muy hépatite muy faiblesse sexuelle muy jabet muy hémorroïde muy psoriasis ñu ngi ko xamee ci ndoxu siti lépp loo xam ne ay traitement la yu jëm ci wàllu yooyu noonu ak tension ñun boo ñëwee si suñu boutique bionaturel yoo xam ne c'est à base de produits 100 pour cent naturels mu doon ay traitement yoo xam ne ay traitement à base de plante la boo ñëwee suñu boutique nga amee maladie yooyu noonu bu soobee yàlla ak suñuy traitement nañ la soulager bu baax a baax jëm ba mun nañ la faj ba nga wér nga takkali ko ak feebar yooyu noonu.